mooy euh, li yóbbuwoon Macky Sall Paris c'était quand même quelque chose de très important mm-hmm. mais c'est toujours terrible aussi quand un pays euh, di glorifier xaalis boo xam ne da nga koo leb c'est ça qui qui foofu lañ toll maanaam fii Sénégal doo gis kenn dem banque banque lebal ko xaalis bu génn di ko di wër ci dëkk bi. di ko sabar woo sabar bi na leen banque damaa lebal. <laughs> donc euh, te te loolu la et cette question elle est importante pourquoi parce que li ñu bëgg a defloo ni ñu transition énergétique maanaam ni ñuy utiliser pétrole ak gaz en tout cas énergie fossile yi ñun dañ koo war a wàññi passer aux énergies alternatives li ñu wax énergie verte sauf ko ñoom dañoo dem pays développe yi développé grâce à l'énergie parce que révolution industrielle énergie moo ko waral ñoom ñu développé ba pare léegi xaalis bi ñuy jox Macky Sall dañ ni ko obligation yi mooy pétrole bii nga xam ni commencé nañ koo am sax ñun war ñu koo jariñoo quasiment dans l'absolu loolu la ñuy wax am nañ pétrole mais ñun duñ ko jariñoo pour euh, développer wu parce que àddina dafa war a dugg ci transition énergétique léegi daanaka yow pour nga abandonner say prétention au développement ci lañ lay neexalee xaalis boobu te l'Afrique il va te gis nga fi ñuy defee sommet yi <coughs> Paris lañ koy defee ji duñ ko sax defee Afrique cest dire que ñun yàquñu àddina parce que amuñu pollution amuñu industrie yuy polluer ñun yàquñu àddina l'Afrique n'est absolument pas responsable de euh, climat bi détérioration du climat couche d'ozone bi ni mu yàqoo parce que amuñu nous ne sommes pas un continent industrialisé mm-hmm. léegi ñoom ils veulent passer d'une société presque post-industrielle ak ay énergie yi xam ni ñu nag ñun duñ ci dugg est-ce que ñun am nañ ay capacité tey renoncer aux énergies fossiles mhm. te ñoom ñoo ko yàq te normalement le principe c'est le principe du pollueur payeur ñoom ñi yàq ñoo waroon créer ab fonds boo xam ne au moins ñu accompagner la mais dañu lay lebal xaalis <laughs> pour nga renoncer à des droits de souveraineté au développement malheureusement bon sunu pays africain yi gis nga leen du ñu dem de façon ordonnée même si ànd nañ bokkuñu ay intérêt te lu ñu leen signé loo ñu signé fi mu toll nii la Macky Sall doon defi Paris nit ñi xamuñu appli dañ naan pluie d' argent récolté mais du xaalis bu ñuy may quoi man titres yi ñuy utiliser. Mm-hmm. même jour ministre yi. di la expliquer comme quoi parce que lebal nañ ñu xaalis ça veut dire qu'on est sérieux et quoi euh, ni ñuy ndamoo bu ñuy leb xaalis c' est c' est hallucinant bu ñu koy leb mais comme que sénégalais yi on leur a pas expliqué. Mm-hmm. xaalis bii ñu leen di jox nan ngeen koy fayee parce que au final ñoo koy fay. Mm-hmm. mais ku nekk xamoo nooy fayee xaalis. maire hmm. bi jaay gerte caaf ak menuisier bi ak maçon bi bor bi nan ngeen koy fayee de deux sortes la état day yokk ay impôts bu dee suñu pays la nga ni doo yokk impôt mais da ngay renoncer defar ay infrastructure hôpital Europe ku dem doo fay ñun suñu hôpital da ngay fay ku hmm. amul doo fay parce que état mu ngoog foo mën a dem à part ville yi tali doo ko fu fekk bu tawee amul assainissement maanaam amul benn file sociaux donc ñaar moo mën a ne ou bien nga fay ko par une augmentation d' impôt état bi teg ay impôt pour fay bor bi mu lebaloon defar ko wala école yi matul classe bu nekk dina téeméeri xale parce que mm. mënul tabax kii bor bee tax moo tax ma ni ku nekk yaa ngi fay bor bi boo demee hôpital yaa ngi koy fay parce que foo xam ne état moo fooroon ne yow yaa dugal sa xaalis mm-hmm. say doom nekkuñu ci condition yu ñu bu baax mm-hmm. et ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc mu nekk daal lu doy waar loo xam ni ça aurait dû occuper euh, média ak intérêt mooy président yi suñu njiiti heure bu ñu demee bitim réew sujet bi nekkoon lu am solo est-ce que ñun suñu pétrole bi mën nañ ko sànq pour ay énergie verte nga xam ni ñun parew ñu amuñu technologie bi encore une fois parew ñu amuñu technologie donte lee am nañ soleil donte lee peut-être euh, mhm. euh, dinañ am les éléments mais pareguñu pour cette transition là mhm. malheureusement dem na signé mhm. li mu signé boo laajee waa assemblée nationale dinañ ñu la yëguñu xamuñu bu ñëwee ñu dugal ko ci code dix ans après ñun ñoo koy hérité naan non non defuñu lii ñu ne ñu déet yéen ko signé woon ma malheureusement xamuñu lan la fa jël te xaalis bii ñu ko jox aussi c'est pour la transition énergétique j'espère que dinañ ko dugal. au moins fi ñu ko war a dugal au moins.